quand le chat n'est pas là les souris dansent a ma lii la tubaab wax le mandat yéen a kaay naan koon kaña ay kaña yu bees kay fan yi ñoo génn biir senegal turbine yéen a kaay ne ko ma ñëw moom Sall ngaari lam tooro buur gën a génn na réew mi waa biir këram nekk cib téesante xeexoo goo xam ni maar day taali mbaadu nag APR dafa nar a tas tasar gannaaw bi nga xam ne Sall nee na bokkatuma dañ doon nag président Macky Sall di ko tuñ tuñal lu ne nu yekk ko ko ci biir mi 24 heures na jeexul de waa F24 ran ko ko yekk ba tay turbine ko ma du ngeen ma may ma ne la léegi nag biir APR ci boppam ñoo yàqalante ci seen biir Amadou Ba Abdoulaye Diouf Sarr seeni militant ñoo doon xeexoo guerre boo xam ne nag ngir doon candidat moom moo ko waral ay militant nag daal di soobu ci biir xeex bi moom Amadou Ba daal di xool xool manul dara ci mbir mi Amadou daal di wëccax bopp bi daal di génn biir permanence ba lanket ko di naan man président Macky Sall li ko dal seddul buñ demee ba président Macky Sall teg a projet de loi ci réew mi ay député Benno Bokk Yaakaar weñ loxoom naan kon duñ ko wote na deñ nga xam ne jamono soppeeku na na wala l'info yéene kaay ni ma tey ma nittali la nag ab show la nu woote woone dañuy boole seen doole ñoom waa APR mbir ma nag daal di mujjee ci pëcc xoo direct news naan Amadou Ba daal ma ngay setal boppam naan bu ko kenn jiiñ naan dafa ne candidat la musu ko wax le témoin yéene kaay ne ko ña ànd ak Abdoulaye Diouf Sarr ñoom la ñu tuumaal ne ñoo bëggoon nag yàq kaddu Amadou Ba yi saboote kaddu yi nga xam ne Amadou Ba bëggoon na ko yëkkati mbir ma nag daal di mujjee ci xeexoo goo xam ni maar day taali le la ma la waxoon rek kañ APR ngi tàmbalee génn benn par benn le point yéen kaay naan kon violence goo xam ne gëj naa am ni ki démb moo am ci siège bu APR Amadou Ba ànd ak ngoram tontu tontu lu metti ay ñooñu Abdoulaye Diouf Sarr mu mer loo leen ndax nag Abdoulaye Diouf Sarr dafa ne Ndakaaru dafa am ñaar ci kandida Amadou Ba ne ko déet keccan ma ca man manumaa jiitu kaddu président ma Macky Sall munumaa def sama bopp candidat tànk Sall tabul kaddu gii metti lool ñi nga xam ne ñoo ànd ak Abdoulaye Diouf Sarr ñu daal di songu nag ñooñu Amadou Ba yi dal seen kaw daw génn saal ba lu ko may làmb ay ñaaw le point naan Abdoulaye Diouf Sarr kan moo ne ko candidat la te laaj ba mooy ndax Diouf Sarr ma ne la am na popularité boo xam ne may na ko mu daal di roñ-roñee bu Benno Bokk Yaakaar bi dem ak moom turbine yéen kaay ne ko en tout cas APR moom boo moytuwul ndakaaru gii jël joob sàngomaar dana ko ñàkk Amina Fall njiital mouvement Dakar émergent di xamle ci turbine yéen kaay ne candidat bi gën pour APR ak Benno Bokk Yaakaar mun leen wax ba mu génnee ndakaaru ndax loo ci mënti waxit ndakaaru nekkul fiyeefu kenn nekkul baasu kenn génn faaw ñu làmb biir réew mi nag te làmb biir réew mi fi mu ne mooy làmb Abdoulaye Daouda Diallo le mandat yéene kaay naan man Sall ngaari lam tooroo ngay jeexal kaña APR yi nag tàmbalee génn ñu tàmbalee xam nag dëgg-dëgg ñan la intérêt andi woon ak ña nga xam ne Sall rek moo leen ñor ñoom daal Sall la ñuy topp ña nga xam ne lu président maki Sall wax rek la ñu wax ña ngay tàmbalee feeñ suur so aane ma beneen candidat ngi ni Ndongo Ndiaye lay wuyoo nekkoon conseil spécial bu président Macky Sall ndongo ma nga naan conseil spécial laa woon waaye du ci lépp laa doon àndal président Macky Sall Sall nii wii nii noo gi moom masuma caa ànd ak moom dafa dem ba biir présidence dañ ma doon wooye ku dëgër bopp ki ndax nag la ma jàppoon moom laa daan wax te bu ngeen ma ñemee xam ni président buy dugal loxoom ci justice day jeex ci réew mi critique yéen kaay naan koon mu ne ku jug sampu am na ñoo xam ne moom ba nu jógee kenn jógul ña ngay wër Sénégal fu na ñu dugg fa di tuñ tuñi waaye am na ci ñoo xam ne nag fi ne dafa mel dañuy saboté si présidentiel bi réew mi quotidien naan koon am na cib candidat boo xam ne moom naka la déclaré candidature am ñu ne pays kaay naan man booba bugaan a ngay jokkoor maajoor jokkoor leel président Macky sàll ba tey naan kon détenu yi nga jàpp yow Sall ne doo leen bàyyi foo ko teg 24 heures yéen kaay naan man jiital gëm sa bopp nee na xeex bi ni xeex ngir liberté dañ koo war a wéyal waaye tam gën caa ànd ak dëggu président maki Sall xam ne nag lii ñuy wax dun ca deltu ginnaaw benn yoon ci waa grand place mu fay xam le ni ñun ñëpp bun jàppee ni président maki Sall lii mu teg Ousmane Sonko duñu dal ñoo ngi nax suñu bopp wala Sall képp koo xam ne nag ma la yàqal ko ci troisième mandat bii dina dal sa kaw la am sa assemblée nationale nag di ñu won fan la jëm ak lu mu nar ci ñun sénégalais yi fas yéene nag caxat caxatee police ak gendarmerie ak génn nag pàcc ci magistrature bi nga xam ne nangu na nag doon doole président Macky Sall l'évidence yéen kaay naan maan gayta ne nga naan kon bàyyil Ousmane Sonko mi nga tëj te bàyyi ko it mu bokk ci élection présidentielle yi vox populi mel ni ku naan maan Sonko moom never mind bii philosophie la Ousmane doxee tëj nañ ko waaye ma ngay doxal ab programme am ñu loo xam ne nii ci wàllu programme ñoom waa Pastef fas yéene nag ne saraax ci présidentielle bi laas naan maan ña ngay wax waxu présidentielle bi ña ngay jaay sunu géej sursoir naan kon juróomi licence de pêche yu yees lan war a jox waa bitim réew te tey jii ci suba boo moytul dana am ñu war leen jaay sunu yeboy tas war leen jaay sunu yeboy mërëk war leen jaay sunuy sompa war leen jaay sunuy gis war leen jaayit sunuy kurku yéene kaay bi naan maan buñ deful ndànk ma ne la maccaat ci boppam mooy jeex ci réew mi turbine yéene kaay naan kon déet geneen problème a ngi nii ndax nag dañ ne woon baril pétrole bi njëkk 2021 lañ ko koy goqi ci géeju Sénégal gi mu gi ñu ne 2022 mujj bi ñu ne 2023 léegi nag yóbbu nañ ko ba 2024 faf te naan nag taxawal nañ ci Sénégal ab pôle financier boo xam ne moom mooy remplacer CREI yi yéene kaay bi naan maan dossier CREI yi fu ñu jëm dossier Cour des comptes fu ñu jëm l'enquête naan kon gannaaw juróomi weer yoo xam ne ni enquête nañ ko division des investigations criminelles daal dinay boucler dossier ya fi mu ne kay jàpp tëj moo ci des tribune naan kon boobu ay jëye jeexul ci réew mi genn nag maçon moo daanu ca Médina rue 24